waaw donc je peux dire que ne euh, turu coalition la ay xottu la rek ay xottu parti yu dajaloo ne dañoo former coalition opposition bi kat mënoo bañ a mënoo leen bañ bañ a bañ a nangul ne actuellement ñu ngi jël ñu ngi jël forme. non non non ban de opposition ñun on a amaguñu opposition de. lu tax amagu leen opposition opposition bi. la preuve de gis ngeen bi ngeen defee dem bi ngeen présenté seen euh, référentiel bi ku ci nekk ci opposition bi génn nga wax ci sa xalaat. waaw mais bon loolu nga tuddee opposition d' opposition de xam nga kenn. du moom opposition bari nañ Amadou Ba opposition la. Bougane opposi opposant la du moins Amadou Ba opposant la ba ci président Macky Sall mi nga xam ne léegi moom moo jiite te teddali sa takkuwal. xam ñoom ñëpp actuellement ci opposition bi la bokk. waa président Macky moom mu ngi opposé au ñi fi nekk. non moom mu ngi waaj ñëw de. ñi fi nekk occupé plateau yi di wax rek fukki ni topp leen. te élection yi bu ñu wàccee sur le na ko wane kii si gën a bëri wax nekk ci plateau télé yi nekk une deux trois comme yor na télé une deux trois mu nekk conférence de presse une tête waxul dara lu am sens il est dans des il le superficiel du dugg mukk ay débat du wax mukk dans en profondeur kooku gis nañ fii bi parenage mënu koo jàlle élection locale yi mu demoon amul parenage moo tax moom mu dem mais élection yi am parrainage du ko jàlle te bi mu demee 670 voix la amoon fa mu dëkk jël donc on n'a pas une opposition te gis nga ci régime bi ñu nekk nii ku bëgg a opposé la nga am xam-xam parce que ñun xam-xam la ñu andi des ku ñëw ku ñëw fekk ñu sur des débats d'idées en bonne foi nga génne li nga xam nga teg de bonne foi. Mm-hmm. ñu génne li ñu xam ñu teg ñu échanger. mais boo bëggee nekk ci xuloo ak dàgg sante duñ la duñ la faale sénégalais duñ la faale parce que sénégalais xam nañ ne les choses ont te bu ñu demee élection ñu woon la ko toroxal la nga dem toogiwaat nekkaat sa si sa télé say micro di wax donc loolu nag taxul ñu naan opposition te ñun ñun si boppam dañu am intérêt wala dañoo bëgg sax ñu am une opposition de qualité ñun loolu la ñuy ñaan une opposition ba nga xamante ne day nekk dans la proposition bu amee lu baaxul mu ne lii baaxul andi lii li mu yaakaar ne moo baax mm-hmm. mais pas li ñu nekk di gis nii li ñu nekk di gis nii moom non moom dinañ ko déglu xool lan lay andi rek waaw. mooy chef de l'opposition de. bon chef. <laughs> d'accord d'accord alors euh, Saliou fi ñuy jeexalee très rapidement mooy wàllu reddition des comptes bi euh, donc gis nañ si pôle parquet financier bi mu hmm. ngi gën a continuer di wëyal euh, liggéey bi am na si ñenn ñoo xam ne interpellé woon nañ leen ñu wax ne conditions yi la ñu mën a teg après ñu libéré leen bàyyi leen ñu dem maintenant comme niñ ko waxee am na ci ñoo xam ne nag dañuy wax ne euh, yenn ñenn ñi nga xam ne ñoom la ñu njëkk a convoqué peut-être euh, ñenn ñi ñuy wax ne acharnement la ainsi de suite mais ak lu munti xew sénégalais quand même ñu ngi réclamer que pôle parquet financier bi mu continuer li nga xam ne moom mooy liggéey bi bañ a ciblé kenn te aussi mu jaarale ko dans les règles de l'art parce que dañu nekk ci contexte électoral Euh, évi évi évidemment ñun am nañ yaakaar bu baax que ni magistrat yi ñu fa teg dinañu def seen liggéey normalement ñu si benn yoon doute ndax ba ñu ñëwee ñun loolu la ñu njëkk. mais am nañuy doute baaraam que ni acharnement bi dafa commencé. acharnement ci nan fii gisuma fi acharnement bi yenn ci benn reddition des comptes c' est une demande populaire sénégalais yi ñoo ko demandé ñoo ko bëgg sénégalais yi ñoo bëgg ña fi nekkoon yoroon seen alal ñu saytu nañ ko yore woon nan la ku si def naka si dul noonu. justice def liggéeyam acharnement mënu ci am ñun amul tànn kii xamante ne moo ñu intéressé wala peut-être il peut être un un, potentiel opposant ñu jàpp comme ni ko régime bi passé defoon déedéet pour financer dinañ ko bàyyi mu def liggéeyam émission de l'exécutif sur le judiciaire dootu fi amati loolu jeex na fi te incha allah réforme yi ñu bëgg teg bu ñu demee assemblée nationale bokk na ci gën a dëgëral justice exécutif génn ci loxoom. surtout loi liberticide yi nga xamante ni tout le temps lu si ëpp bokk na ci li tax ñuy convoqué nit ñi aussi fële. waaw effectivement ci ay délit de délit d'opinion. effectivement ci bonne gouvernance bi ñu woote mooy suñu accès yi loolu bokk na ci <clears throat> réformer la justice euh, réformer revoir le code pénal ak yeneen. li ñu war a revendiquer dafa bari parce que wala yeneen disposition yam tey c'est liberticide L cinquante ba jëm cent yëpp dañu war a dañ ko war a réformer dans les normes effectivement xam nga même disposition nag ñoo fi nekk mm-hmm. même justice bi moo fi nekk mm-hmm. donc c'est tout à fait normal ñuy gis yenn yi waaye ñun bu ñu jotee ci assemblée nationale incha allah réforme yu ñu bëgg a teg dinañ ko teg incha allah dina am benn juge des libertés euh, procureur dinañ wàññi dooleem te loolu bu ñu ko defee jàpp naa ne déjà gis nga ñun ministre de la justice bi ñëwee joxuñu ko sax ku bokk si ñun ministre de l' joxuñu ko sax ku bokk si ñun ministre des forces armées ministère des forces armées joxuñu ko sax ku bokk si ñun te ñetti ministères yooyu ñii fi nekkoon moom lañ doon utiliser pour noot opposants yi ñun ku bokkuy politique yoru ko donc cela veut dire que déjà dès les premières mesures wane wane nañu fi ñu jëm wane nañ bëgg nañ une indépendance de la justice bëgg nañu Sénégal mu dox dans les règles de l'art bon gouvernance Sénégal nekk si une référence en Afrique. d'accord en tout cas peut-être côté acharnement bi ma énuméré léegi du samay wax mais dañ ci interpeller nit démb mu avant sax ñu koy mettre garde bi muy la cas de Diégui Diop ñëwaat na ci bu baax a baax ba d'ailleurs sax euh, euh, gis ngeen ñëpp li nga xamante ne fa la yëf yi mujjee démb lañu ko doog a libéré. waaw xam nga kooku moom kaam c'est autre chose alalu askan wi la gu ñu wax ne moo ko jël wala jëlu ko. du ma si sori en tout cas toog na si plateau télé lu nekk mu wax ko waaye nangu naa joxe waaw comme nangu naa delloo nag nangu naa fay nag <laughs> sénégalais yi nañu apprécier. <laughs> jël jëloo mais nangu ngaa fay. loolu moom na Sénégal apprécié d' accord d' euh, accord fi ñu jeexalee mooy euh, am na ñu doon samp laaj jëmale ko ci retour ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall est ce que état bi pare na pour aussi préserver li nga xam ne moom mooy euh, sécurité parce que gis ngeen attaques yi amoon fële ca Euh, à son endroit euh, <laughs> interpellé nañ ci le porte-parole Moustapha Sarr l'autre jour mu am kàddu yu si yëkkati jëmale ko ci loolu parce que nag ak lu mu ci xew moom ancien président de la république la. Macky Sall il est menacé. Ah, c'est un ancien président gis nañ a incident bi amoon Maroc te yegg seegul Sénégal. ah bon man day jàpp naa il n'est pas menacé. donc ay na état pare na pour préserver nangam nangam c'est comme s'il était menacé dans son pays moom moo pare gàddu yi bagage génne kenn newu ko génnal kenn newu ko toogal moom moo def choix boobu heure bu ko neexee na ñëw am problème waaye réew moom xam naa ne c'est un état yoon moo fi dox yoon dina def liggéey. parce que déglu nañ Fadilou Keita nee na Macky Sall bu tegee ay tànkam dañ koy dañ koy dañ ma ne Macky Sall c'est un président fii les autres sénégalais ni ñu fi toogee ay ministres yu fi nekkoon ñoo ngi dox seen soxla kenn menacé wu leen. ay ministre mi fi nekkoon ñu ngi dox seen soxla directeur yi fa nekkoon ñoo ngi fi di dox seen soxla moom lu ko teree ñëw toog si réew bi comme il comme il est la tête de liste nag na ñëw campagne amul problème de façon Sénégal est un état de droit yoon dina doxal dina ko def ni ko war a defee <laughs> d' accord Saliou en tout cas merci beaucoup amoon nañu un réel plaisir dalal la comme niñ koy doon faral di defee saa su nekk ñuy xaar rek euh, campagne bi incha allah. législative bi lan ngeen teg ci loxo sénégalais rek bu ko defee. ñun ñi nga xamante ne ñu ñoo fi teewal askan wi. ñu mm-hmm. toppal leen képp koo xam ne rek teg na programme am par rapport ak législative 2024 donc moo bàyyi leen nga tàggatoo ak internet yi. merci beaucoup Lala merci de m'avoir donné voilà l'occasion de m'exprimer une fois de plus wala di déglu di remercier ñu doon déglu ñëpp ñu doon seetaan di leen woor rek xam naa ne sénégalais sax une bonne partie xam nañu li leen war mais dañuy dellu di la ñaaxaat rek parce que euh, boo jiitalee nit. ne ko doxalal Sénégal am na fu ñu ko fekk te am na fu mu jëm démb présenté présenté nañ leen référentiel bi te am na benn diagnostic bu ci def ñëpp xam nañu fi réew mi fi mu nekkoon. donc kooku nag da nga koy jox les mécanismes da koy jox nag doole ju mu mën a gouverner donc ñu ngi leen di wax rek la liste de Pastef ñoom ñëpp ñu jàpp si bu ko defee ñu mën a dem assemblée national am des députés yi nga xam ne ils seront des députés du peuple. député yoo xamante ne dinañ mën a jox doole euh, nguur gi fi nekk voté loi yi xamante ne moom la ñu bëgg a def mooy ah, réforme nekk député Pastef wala député APR nous serons des députés du Sénégal des députés yi nga xamante ne dinañu voté des lois utiles pour ce pays dinañu apporter réforme yi ñu war a réfo def dinañu contrôler les actions du gouvernement la politique du gouvernement euh, ngir Sénégal fii mu nekk mën fi jóge ñu mën a dem dans des lendemains meilleurs vision bi ñu am vision 2050 ñu mën ko mettre en œuvre ba sénégalais yëpp gis ci seen bopp incha allah rabbi loolu moo nekk suñu mëbët di si woo sénégalais yëpp di si woo surtout la jeunesse parce que la jeunesse tey jii président Ousmane Sonko dafa leen bàyyi xel bu baax bu investir quinze jeunes sur les listes loolu wane na ne bàyyi na xel bu baax que ni Sénégal c' est soixante pour cent de jeunes. Mm-hmm. des jeunes qui ont moins de trente cinq ans mm-hmm. pour cent la population. donc ñooñu noonu tey jii mënoo def dara te doo leen bàyyi xel mhm. ndax ñooñu seeni soxla ku ko rek rek leen nga soxlay Sénégal mhm. donc ñun ñi en tant que jeune on sera la pour les pour la jeunesse sénégalaise on va défendre en tout cas la cause de la jeunesse sénégalaise dinañu gën a bàyyi xel tey jii lii ci projet bi ba ñu mën ko mettre en œuvre surtout mhm. le capital humain xamante ne euh, lu si bëri lu concerne jeunes yi fa la nekk muy seenum jàng seenu formation ba seenum insertion ak yu nu mel yooyu aussi ba seen lu jëm tamit si entrepreneuriat ba yooyu yëpp ñu mën koo développer ba jeunes yi mën a gis seen bopp jeunes yi mën a toog fii Sénégal mhm. ñu àndandoo liggéey di leen woo rek ni la wax ne Sénégal gi ñu jëm nii Sénégal gi ñu nekk nii ñoo ko mën a liggéey ba ñu mën a àgg fa ñu jëm donc nañ toog si réew mi liggéey Sénégal incha allahu rabbi merci en tout cas amoon nañu un réel plaisir dalal la face à l'actualité moo doon recevoir ki nga xam ne moom mooy Saliou jonn nekk candidat ci liste titulaire bu PASTEF muy list nationale bi nekk troisième position donc moom la ñu fi dalaloon j'espère que. tool bi léegi gerte bi xanaa war na ñor nag. waaw waaw léegi ñu deqi de xam naa semaine bi di ñëw. wala Sénégal set digoon nga ñu gerte de. waaw waaw non bu ñu deqi da ngay ñëw sax gerte gi. très bien incha allah en tout merci beaucoup Dia mention spéciale à Tuuti la grande réalisatrice maa ngi koy jëfal bu baax a baax sama lébu bu baax boobu noonu di jaajëfal képp koo xamante ne rek yéen a ngi doon suivre topp leen suñu ay programme sur Sénégal set d'ici là portez-vous bien à très bientôt jërë ngeen jëf.